كتبت وكل فاء أخزا وزرقا وقبل ساعة internautes nga xamante ni yéen ak ñuy teewlu depuis boobu ñu ngi nga xamante ni ñu ngi nekk ci préparatifu grand magal de Touba édition 2021 ñu nekk fii nga xamante ni moom mooy résidence Khadim Rasoul résidence Khadim Rasoul ñu ñëw fekk fii jàmbaar joo xamante ni yàgg naa bay waaram ci euh, yoonu murit muy sëñ Mamor Eh, yoonu géej gi moom ñëpp ko xam macha allah ci waxtaanam ci Serigne Touba ci yoonu géej gi surtout nga xamante ni moo waral coow lii lépp moo waral bés bi ñu bàyyi la rek nga nuyoo mbokk internet yi ñu daal di dugg ci li nga xamante ni moom mooy waxtaan. waa bokki téléspectateur l' internet ak euh, téléspectatrice yëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziar di rafetlu jotaay bi nu am ak yéen di sant nag sëñ Basiroum sëñ Abdou Khadir nga xam ni daanaka li ëpp ci communication maa ko ko yoral di ñaan nag yàlla mission bi sëñ Touba jox mu àggale ko ànd koog magam ju baax ji Serigne Mountakha moom sëñ Bassirou ak njaboot sëñ Tuubaa gépp macha allah nuyoo bi am na solo ñu nit ña ngi lay fay waaye sëñ Mamour dama bëggoon rek ñu waxtaan si li nga xamante ni moom mooy màggalu Touba sabab gi li nga xamante ni mooy fay gi nga xamante ni suñu borom fay na ko Serigne Touba Xaadim Rasul ma bëggoon nga ñëw ci rek ci ñaari fa yi des ci màggal gi. waaw sëriñ bi dafa ne ah, la motif de mon départ de en exil au Gabon est la jusqu'au près de lui de Mian l'intercesseur et serviteur éternel du prophète mu wax ni du budul woon xeetali sama ñooñ xeetali xeetu Seydina Muhammad du jar tukki waaye nee na l'islam moo aajo wala Cheikh laaj ndox bu bari ndeysaan mu mel ni waxtaan yi moom jàpp naa ne waaw moom daal kéemaan la ndeysaan euh, xam naa ne euh, maanaam euh, sëñ Ibrahima Jong kii bi ko mën a amee waaye jonjkat mag bi mooy sëñ Touba te Serigne Moussa Ka dane ko woon la yoneen ba ruujool ruujoon gaaye booyal ko yaa ko bay bu lislaam defoon ab tool ñu jëwrin ko waa Touba lii nga gis mu yi di ko def xumb xumbee bii wéetaayub Serigne Touba ba lay wecc keroog bi mu pénétré le jeewal fekk le clerc war koo jëli laataa mu koy jëli sosol na sëñ bi ndax moo commandant Merlin Merlin mu nekkoon gouverneur général bu Dakar nga gis ñu bind ne la lecture des rapports de Moussa Merlin et le clerc et fait comparaître Ahmadou Bamba a été d'avis et l'unanimité qu'il y avait lieu de l'interner jusqu'à ce que l'agitation causée par ces enseignements soit oubliée au Sénégal loolu ñoom ñoo ko bindoon muy rapport boo xam ni ay sos yuñ sosol sëriñ bi la sosol ko ko ci en ndax booba ñaara fi ne sëriñ si di ko fiire ñenn ñi ceddo yi bañ koy toju suuf di ko kalaame fekk na booba ndar la mu tee président moom moo fa nekkoon par intérim ndax sujja moo waroon a jël fonction mais comme defagul passation de service ak gouverneur bi fi nekkoon muy Keloman Thomas intérim bi ki ko géré mooy le Mouté Mouté en 1895 moo jàkkaarloog Serigne Touba bind ay rapport bind ay procès verbum envoyé ko ku tedd ki le septembre mu créé un tribunal tribunal bu dynamique tribunal bu méchant tribunal boo xam ni ci histoire de l'humanité kenn mësu koo taxawal muy fukki tubaab bi toogoon bi muy mu Lamouté moomu mooy gouverneur président Kéréchan Zilé commissaire décolonel chef du service administratif Boye lieutenant colonel supérieur des troupes Jourquet directeur de l'intérieur par intérim Sénapolique procureur général par intérim Kalarak médecin principal chef du service de santé Ogaré lieutenant de vaisseau délégué du commissaire de la marine Bazette conseil privé titulaire Vamben conseil privé suppléant superviseur secrétaire archiviste mu jeudi le 5 septembre à 9h du matin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 keroog bi mu pénétré jeewol yëg tund wi gis tubaab yi bari gunu bari dane moo bànji ma bànji sëñ ma bànji jaay ne ko mbàkke mu ne ko lii mel ni toolu dugub ju nangu lu mu doon mun ne ko fetali tubaab bee ana fuñ jëm mun ne ko daa mel ni mbàkke yow lañ doon jëli mun ne ko ñii buñ jàkkaarloog man dinañ xam ne mosuñoo jàkkaarloo góor gu mel ni nun dal ne ma bànji tàllal leen ma ñaanal leen foofu ku fa ma sàgg da naan say waa kër soxaat leen fetal yi leen jaas yi ku ma sàgg waaye tàllal leen ma ñaanal leen ngeen dellu ma jàkkaarloog ñoom ci bàyyi sëñ Abdou Khadir rek lañ ko mës a déggee maami sëriñ Mountakha rek lañ ko mës a déggee booba xam na li muy fekk ndax te xam na ni ñii ñoo faat ñi fi jóge boo gëmul li yéen murit ci gaawaan yër leen téere xaayati awaan xam ni kon bu du kon ak français mbir yi amoon danaa maat fi saasi lañ defoon gaa yi gëmoon yeneen ba misaal mi war naa feeñ ci gaa yi Bamba waaye français not na góori Sénégal ñii mu fetal ñii mu dugal ci Sénégal ñii génn gàddaay far dem ba faatu ñii joxe seeni i ngànnaay ndax nu yaatu fot nañ saa muuri ci réewi soose yóbbu Gabon boole Barama Cissé taale ko pour ba ñuy lakke mbulaañ sa yëpp ko ca biir laaw la ma français ñoo génn lambi julde réewi ñooro rey màkk doom ja jàll futa tooro ñoo génn almaami Ali Bokar Ahmadou Seexu jàpp Abdou Khadir di faat di faat di faat di faat sëñ bi nag na leen bi doy na tey ngeen di ànd ak man fu neex nañ dem mu ñëw ndaru ndakaaru Konakiri Grand Bassam Lodj Mokkel bataa ko abari sit kutumi dawme booma banaana kaa ceeki fan di bango dem lambar na dem ba Maayomba def fa juróomi at Serigne Moussa Kane Cheikh Bamba def juróomi at Maayomba kenn ma xotul Samba ki dem ba Bamba foofa nag maa fa dem bato biñ ko dugal ci résumé gaal gi mi gi tudd ville de Pernambouc ki ko moom brésilien yi ñoo ko moom mariñ Marsand ñoo ko liggéey en 1882 lañ liggéey gaal gi bato bi mi ngi suux 1907 bato bi mi ngi guddee 94 mi ngi yaatoo 11 mètres virgule 7 gaal googu ki ko doon dawal mi ngi mi ngi tudd Roux Roux c'est un témoin d'histoire parce que bato bi embarqué Serigne Touba mu dem c'est Ruxu moo ko conduire bi delloo si Serigne Touba tamit Ruxu la parce que marine marchande dañoo bari bagage fekk ñu bindoon ne Serigne Touba na jël gaal gi tudd Cap Lopez mais après géej gi moo am incident. loolu Cheikh Abdoulaye Dieye bi daan wax allah waaye dun yàlla na yàlla dool leeram moo ma jox document yi waaw kay Babay Cheikh Bamba Dieye maa ngi koy nuyoo passage moo ma jox document yi mu ne. Euh, géej gi dafa am incident moo tax ñu bind ne boo demee ci téere Omar Ba bi dana le marabout Cheikh Ahmed Bamba n'a pas pris le câble pèse jëlul câble pèse kon mais ban gaal la jël ville de Pernambouc xotti océan bi ñu dem ba entre Conakry Dakar ñu ne ko doo julli sunu gaal gore ak ñime ak fulla fayda ak jom multiplier tubaab bi par zéro moo tax mu wàcc ci géej gi dana ma sàmba mu ne ko Mbàkke mu ne ko wàcc gi ma wàcc ci géej gi ana lu ngeen ko jiñ mu ne ko Mbàkke xanaa wilaay mun na ko mukk ma sàmba jom ak fit ak ngëm jom ak fit ak ngëm moo tax bu dee jom sëñ tubaako am bu dee fit sëñ tubaako am bu dee ngor sëñ Tuubaa am bu dee wilaay sëñ Tuubaa am bu dee gëm conviction ngëm principe parce que dañoo mujj ñoom tubaab yi mës nañ désigné benn tubaab boo xam ne c'est un pour ma bañ a guddal tubaab boobu mi ngi tudd négrier ñu ne négrier léegi kii dañoo bëgg ku yàq deram foog ñu bind ci moom lu ñaaw seet nañ mbooleem luy nasaraan yow rek yaa ciy bind ci nit lu ñaaw loo xam ne dafay des négrier si ñoom contrat ñëw ci yéen ne foog mu xool ki muy yàq mooy kan mais ay fan la ko sëñ bi di romb léeg-léeg mu dugg ci xayma gi léeg-léeg mu dem ci jàkka ji da koy rombam yàgg rek pas-pas duggul négrier mu fan sëñ bi sëñ Moussa Ka nee na doxinam dafa simple mu jekk ay peer bu daan wax da koy ndànkal te baat bi day riir sëñ Moussa Ka nee na sëriñ Touba bu nekkul di bindit boo ma ngay yëri mool bu bët yooyu nelawit xol ba moom ma ngay xool bu cër yooyu nelawit ruuga dem aras moom xanaa war na buraax mbaa mu war ca ay soom te lay laa du ko dee dem pay diwaan ca passion yañ sàkkari jaale lay naan borom taar bi le semmal na saaru mbar mbardaan tabaaraka ma jàngal ko saaru furxaan bu injiil ñëwaatoon mu mel ni Moussa bu tawrit ñëwaatoon mu mel ni Isa sa mbuutum xalima raw dabu su Moussa way dee ya nga dekkal tëwoon na Isa moo tax ko ku ko gis faa ko koo dégg muy wax ci sëñ bi lu dul yoon rek ne ko xamoo ko moo gënoon a gaaw melax buy dox soo ko nee jàkk bu la xoolee nga wàcc say bët ndax day mel ni jant bi nga jàkkaarloo moo tax sëñ Moussa Ka nee na bu daan wax da koy ndànkal te baat ba day sëriñ bi bu daan jàng fi alxuraan nga tëj fële ndaa dangay gis kubéer gi yëngu du ñii maa la wax lii du ñii kooku ko tëkkaleel du moromam loogi léegi nag négrier wax ne moom bàyyi na je rendement démission la wax ñu ne ko lu tax mu ne ku mel ni Serigne Touba mosuma koo gis ñu ne négrier lu tax mu ne Serigne Touba de passar noir ser de benn quelqu'un qu'on n'a jamais vu dans notre vie. Ce qui est blanc dans ses yeux est complètement blanc. Ce qui est noir est complètement aussi. De sa taille qui est très petite, de son corps qui est luisante, Cheikh Ahmed Bamba, un homme incroyable, opiniante, de par sa foi et sa religion inébranlable. On n'a jamais vu quelqu'un de pareil chez Ahmed Bamba Signé Négrier. Thierno Mouride maa ngi koy ziar kooku ku mel fi. te loolu ñu la wax foofu déggoo Baye Fall baa ngi naan ma lan lañ ciy wax ci Cheikh Ibra Fall Carpo boo demee ci livre bu ñu wax Cheikh Ahmad Bamba face aux sociétés coloniales moom moo bind ne Cheikh Ibra bokk ci ñoo xol tax mu ne signalement très noir de peau taille au-dessous de la moyenne fronton est large chevelure crépue et broussailleuse œil petit et vif arcade sourcilière saillante bouche grande nez épaté alliance dans les pays marié avec les femmes les plus nobles di Bawol et de Kayor et descendante directe des anciennes familles royales indigènes Guit et Drobé, ces familles ont été rivales pendant plus de 300 ans. Ce femme se nomme premier Gansri Fall, fille de l'ancien Damel de Cayor Omeringone Fall, deuxième Gana Diop, troisième Kumba Tcheleman, et tous les deux filles du Damel Ladior, quatrième Lala et Fall. Fille de Sambalaobe, tuée à Tuan par lieutenant soviet en 1886, cinquième Ben de Fall, vouve de Dembawar. Beaucoup de Moussa Kadeway, dans le cas de Djibouti, fait qu'on a gagné le ñi lay taqal ñi lay setal yaa xàll ngir mii nuy doxee yaa xam sëriñ bi yaa daawo daawoo werenteekub sëriñ bàjjo bi yaa bari njariñ waane wi yàgg ngaa naxe am ngay dërëm am ay ngërëm jël sëy dërëm jënday ngërëm loo sa am tabal këram ay junni faal nga daa joxe jox nga ko addiyey gileem yu sëfi ngurdu sëfi koom soldaar sa yaa joxe sa doom faalilu faal am nag taxe sa ndaw da daan dem ba gabon di dugg ci gaal yi yori saakuy rong dugg ci gaal yi yori doo doo denc lëf ba muy maxe asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërëjëf macha allah waxtaan wi amati na solo dégg ngeen sëñ Mamour yoonu géej gi moom toujours rek nii la waaye sëñ Mamour bala ngaa dem rek dinañ bëgg nga wax ci ñaar rek loo xamante ni ay kaddu la nga dénk ko ndaw ñi ndax eh, yow sa kaddu ñëpp nañ koy déglu te dañuy jëm ci màggal gi mu des 48 heures waxal ak ndaw ñi nga xamante ni ñoo fas yéene ñëw Touba màggal si màggaluk sëñ Touba ji nañ murite rek mu ne moom ku ne xam nga lu baax xam lu bon nanu murite bu fi kenn ñëw pour jéem lor kenn kenn ku ne neel sëñ Touba sa gan yi maa leen di teeru même boo jëlee oto di ñëw sax waxal sëñ Touba ko sa gan yi bu ma àggee Touba maa lay maa leen di teeru kii teeroo ko gunge nag du def lu naqari gan kon nañu bàyyi jukko ju ñu am daal bu dul bu bu bu baax na ñëw bu dee bu dee bu dee jikko ju ñaaw la na des dakaar jikko ju am muy bu baax nañ ko indaale Dakar nañ ko indaale Touba gi nga xamante ne moom la sëñ waaye nag nañ bàyyi lépp foofa waaye ñëw te bu ñu ñëwee bu ñu solaat bi ko doon ak wax nga dëgg <laughs> ngan ngan bu neexul uh-huh. gunge du ko defar kon na ngan gi neex kër yi yaatu na uh-huh. dalal nañ ñëpp waaye daal bu kenn ñëw fii ngir benn ñaawteef maa koy ñaan ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. jërëjëf ñu ngi lay sant di la gërëm sëñ Mamour yoonu géej gi yéen a ko seetaanandoo ci Africa Presse euh, 24 Univers Info ak Dakar Instant ñu jëloon sëñ Mamour waaye dañuy continuer rek jëli ñeneen ñi parce que màggal la ñu wax fépp foo xamante ni temps fort dafay am rek. den fa ñëw Cheikh Mbacke yaakaari jaam ñi. sawar naa cee wax nag moom. Cheikh Mbacke yaakaari jaam ñi. sawar naa cee wax nag moom. barke Serigne Saliou Mbacke. waaw aca bisimilah soxna si. bàyyi la nga nga nga nga yëkkati ay kaddu rek ci ki nga xamante ne mooy ku tedd ki Ahmadul Xadim bàyyi ba siroog baara maami da nekk seen mbàkke ki ñu ki ñu tàggale xiif bi tàggale noog lor tàggale noog lor tàggale noog los tàggale noog fan tàggale noog euh, euh, lépp loo xamante ni moo nu nar na lor sëriñ Tuubaa rek bàyyi seex bàyyi bàyyi seex Muudu Moustapha rek bàyyi seex Fallu rek bàyyi seex Saliou Mbàkke rek bàyyi seex maami sëñ Muntaxa donga barke Serigne Saliou Mbacke waaw moo waral lu mel nii bi mu nee yaa ahlal bari yaa ahlal bari ujoolil bari bari saqaay moo woote ñëpp teew si nañu barke Serigne Touba ñëpp a teew mu daal di ne nag nag bind na jul xadaa yi ñëpp di ko war a jàng nag ci yar ak teggin saa boo ko jàngee rek am di nga amub yar da nga amub teggin da nga xam fooy teg kilifa di nga xam fooy teg sa morom di nga di nga xam kan mooy sa morom di nga xam kan mooy sa kan moo la mag noonu moo tax Serigne tubaa bind loolee kon nun ay taalibe yi dañ leen a woo yéen ñëpp yaa ahlal bahri wujoodil bahri bari saqaay ñëw leen nu sant le Serigne Touba bisam bi jërë ngeen jëf. jërëjëf papa kaddu yi am na solo na solo donc euh, ñu dem rek ci fi nga xamante ne moom mooy xabdu sëñ Fallou comme ni ñu ko waxee gaay كتبت وكل فاء أخزا ووسرقا وقبل سالمي نسيب دركا كتبت وكل فاء أخزا ووسرقا وقبل سالمي